asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di la fekk ba fi nga nekk di la jox loxo di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada yi di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn man la Boury Bathily di sër ci Soumbourou Bathily sama yaay dëkk yaa ginne sama papa dëkk maxal na tubaabu kaani ñuy ay Bathily yaari Galambo di siine doo sàmbaree ne

erreur du ñàkk l'erreur est humaine tey jii xëy na foot de frappe la am na leneen lu mu buggoon waxee mu waxee noonu affaire bi gauche ku nekk jëlee ko nu ne mais ak lu mu mën ci doon rek yàlla rek moo dul juum nit day juum ñëppay juum muy man muy président muy woykat muy képp kuy koo xamante ne yaa ngi wax rek surtout ci télé juum dalay yomb te boo juumee yaakaar naa ne war ngaa askan bi war nañ laa comprendre ci loolu baal la parce que c'est pas la première fois ay at yaa ngi koy nekk ci télé bi di jouer ay théâtre di jouer